noo koy defee. noo koy de Sénégo ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal ci chaîne bi ak li nga xam ne moom mooy situ sénégo point com ak kawtef com tey nag dama ñëw seet si benn tiktoker moom ak jarbaatam ñoom ñooy def li nga xam ne ñoom ñooy ay vidéo tiktok dama seetaan seen benn vidéo gis mu naan waa Sénégal dañ fiy ñëw loolu frappé ma moo tax ma ne béy di nañ dem seeti gars yi donc nag ñu ngi seen kër ñoom xamuñu woon sax ñëw nañ mais dañuy dugg nànk xool seen répétition ñu ci biir di di def li nga xam ne moom mooy tiktok TikTok <laughs> tey gars yi bett na leen xulóowuñu ah. aja dawal dawal biir bi ñu dem. eh. mais noo ko defee. noo ko defee. mais madame da nga aay. voilà chers internautes comme nu ma leen ko waxee woon tey ñu ngi fii nag ci euh, Diossa ak Sa Thiès donc dañuy bàyyi ñu nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di seetaan ci réseaux sociaux yi déjà après ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi. bon asalaamaaleykum sama gaay ak euh, suñu fant yi fant bébé Mayram yi ñu ngi leen ñu bégg bu baax waaw kontaan nañ tamit trop waaw si bett bi ngeen ñu bett ñii mooy loolu xam nga waroon nañ ko gën a préparer xam nga rek. Mm-hmm. noonu la demee quoi mais kontaan nañ ci trop bégg nañ leen bu baax. voilà ñun noonu lañ ko bëggee parce que dafa mel ni damay gis ci commentaire yi ñu naan répétition yi ñooy gën a neex sax que vidéo yi nga xam ne ñoom ñoo moom ngeen di dugal donc gannaaw bu ñu leen nuyoo nag euh, Diossa sa tur dëgg-dëgg Diossa la wala. Euh, sama tur dëgg-dëgg la mais dañ ko inversé def ko Diossa donc euh, loolu la quoi xam nga. voilà ñu gis la léegi TikTok bi. Euh, gars yi xàmmee nañ leen bu baax a baax macha allah yow ak sa jarbaat balaa ma lay laaj déjà ci moom dama bëgg a xam moom déjà yaayam ban relation nga am ak moom ba pare. Euh, déjà yaayam xam nga sama grande sœur la mais on dirait que man xam nga rek ay seex lañ quoi en fait parce que déjà complicité bi mag moom avant kii di juddu xam nga complicité bi déjà dafa dafa jàlloon. avant kii di judd donc maag moom daal nice quoi xam nga comme ay seex. donc maanaam bëggeel bi nga ko bëgg moom mooy reflété ci bëggeel bi nga xam ne moom nga bëgg sa. c'est ça c'est ça au fait xam nga mbëggeel bi ma bi ma ko bëgg tamit ba ma gisee kii tamit xam nga affaire bi gën ma neex sama premier jarbaat moo nekk nii donc euh, xam nga ma commencé nag di ko di ko vidéo ay sinap affaire yooyu noonu di ko xam nga si la affaire yi jàlle quoi. dañ naan sax des fois day dafa mel ni gëmewoo ko xool yi ngeen di xool te mais bu nekkoon góor nag xam naa dina gën a garaaw heureusement que jigéen <laughs> bu nekkoon góor kay jour lay doon xam man jour laa <laughs> bu nekkoon góor kay jour lay doon mais xam nga rek gëmeewu ma ko <clears throat> sama sama yaay tamit gëmeewu ko maamam xam nga parce que moom moo nekk suñu premier jar suñu premier jarba sama sama yaay tamit premier sëtam aussi donc ba mu ñëwee mu tandi la juddoo yàgg dafa un mois après si la ñëw léegi ba mu ñëwee nag xam nga gars yi gëmëyuñu ko ku nekk di ko yàq surtout maama bu góor da ko yàq carrément xam nga maama bu góor mu buggul dara lu ko metti xam nga c'est ça quoi en fait voilà. Euh, bi ngay doog a tijji li nga xam ne ne moom mooy euh, compte TikTok bi yow rek yaa doon def vidéo wala da nga tijji rek commencé def ak euh, bébé Marème vidéo waaw effectivement man yàgg naa def vidéo genre damay football ak sama copain yi tamit xam ma def ko josaay ses pot ñu continuer di def TikTok tik boobu TikTok mu ngi nekk musical yi voilà bokk naa suñu njëkk a commencé TikTok mais farluwuma si woon carrément tu vois en fait après ñuy dem di dem di dem di dem xam nga ba kii ñëw ba mu ñëwee nag si laa def benn vidéo ak moom affaire bi tamit jàll xam nga ñi ni ne pourquoi pas nga def ko ak sa jarpaat bi en même temps bu may def sama vidéo man kese moom dañ koy laaj ma gis na affaire yi xam nga moom quoi si la bokk en fait te gis naa tamit compte bi gën a yokk ndax moom. ça veut dire euh, moom tey euh, bokk na si lii di gën a booster compte bi soo defee yow kese gars yi dañu naan mhm. ana ana bébé bi maanaam boo defee moom da nga gis ni compte bi moom moom moo gën a tax compte bi boosté wu. waa c'est ça en bu ma defee vidéo man kese da ngay gis ne vues yi du bëri ba pare commentaire yëpp moom la ñuy laaj. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moom la ñuy laaj à la dañuy naan xam nga moo la may buzz moo la kii ak affaire yooyu noonu xam nga man tamit may jéem a jaay xama nga zéro affaire yooyu mais xam nga on accepte quoi parce que xale xale moom muumin la te yàlla rek moo koy sàmm te moom moo ko moom ko mun a may lu mu mel nii quoi en fait loolu la. à part TikTok bi ngeen di def ci réseaux sociaux yi boo leen nekkee ci kër gi euh, sans téléphone ni rien du tout ban ban relation ngeen am dans la vraie vie. voilà pour dire vrai nag ñëpp dañoo yaakaar ne moom daf ma yàpp wala daf ma kii ak yooyu noonu pour dire vrai si kër gi. bu ñu nee bu defee dara bu ñu nee dañuy woo Sadio rek day yem voilà bu ñu nee day woo Sadio rek day yem parce que man man la gën a kii si kër gi carrément bu ma ko nee eh toogal day toog voilà te ñu bëri dañuy yaakaar tamit xam nga comme dóor yu may dóor affaire yooyu noonu xam nga daf ma yàpp gi mais si TikTok bi rek la yem xam nga buy war a jàngi tamit nii xam nga man maa koy woon ne ko eh dama jàngi lu ma ko wax nag da koy def franchement. wax dëgg yàlla mais bu dee TikTok moom on dirait que léegi dafa dem ba capter affaire bu dee TikTok xam nga day def affaire rek yooyu yooyu noonu parce que nit ñi loolu lañ bëgg on dirait <laughs> comme moom li ñu naan maire la moom dafa dem ba xam nit ñi tamit loolu lañ gën a bëgg moom mu koy def bien vrai que euh, kii na kii na trop xam nga sob na yëfu xale ak affaire yooyu noonu di mais bu nekkee man ak moom si kër gi c'est autre chose. à TikTok bi leneen day nekk si comme xale normal yi dem foo affaire yooyu noonu bu ñëwee xam nga yedd taxaw demal fii ñëwal fii ak yooyu noonu lépp c'est ça quoi en donc moom dem na tey ba mën na différencier ñaari vie yi vie réseaux sociaux yi boo taalee dalay yëpp parce que da nga koy woon beneen kanam donc à part foofu aussi dans la vraie vie xam na kan mooy euh, ndijaayam. xam na kan mooy parce que ñu si bëri tamit. Euh, am na ñoo xam ne boo leen nee tonton rek seen tonton yi ni baal ma si wax maanaam seen tonton yi dañuy yóbbu seen fiti carrément tu vois te alors que tonton ak euh, ak ak jarbaat war na am benn complicité normale xam nga complicité normal xam nga rek mu jàll comme man ak moom mi nu mu jàllee bu ñu waree foo dañuy foo mais bu ma ko waxee ni carrément gis nga bu ñuy foo normal dañuy foo da nga yaakaar ne xam nga kii voilà ay morom lañ affaire yooyu mais bu ma ko waxee yamal day yam. c'est ça te loolu lañ message boobu lañ bëgg a jàllale xam nga gars yi di foo seen seen seen seen jarbaat xale yeeg yooyu noonu parce que ñoom loolu la ñuy bëgg tu vois donc euh, c'est important quoi. Euh, gis nañ euh, aussi souvent ci ci li nga xam ne ne moom mooy répétition yi da ngeen dem ba ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di seetaan boo leen dugalee vidéo dañuy aimer mais da ngay la plupart des commentaires. dañuy wax dugalal ñu répétition parce que ñu répétition bi moo ñu gënal que euh, vidéo bi nga xam ne dañ ko defar ba pare bu ñu seetloo sax léegi li ngeen di dugal sax ci kii wu répétition yi moo gën a bëri. moo gën a bëri parce que la plupart dañ koy laaj. te bu ñu ñoom bu ñu gisee ñu def video normal buñ ko defee vidéo normal ñoom dañuy waaru dañuy naan waa mais xale bi nan la def ba mën parole yeeg affaire yooyu noonu xama te alors que xam nga ñu ngi naan voilà. kii nan la war a mun a def si répétition yeeg affaire yooyu moo tax loolu da lay ñu ump dañ koy bëgg dañ koy bëgg di xool di ko moo tax ma ne xaar benn jour ma yor sama benn téléphone beneen téléphone ma koy filmer di dóora en même temps TikTok mais benn yoon laa ko dugal rek gars yi aimé quoi xam nga man jàppee ma ko woon sax lu kii mais gis naa ne gars loolu lañ gën a bëgg parce que c'est très difficile nag très difficile nga def nekk ak ak xale ba pare boo mënul muñ munoo kiiw ak yooyu noonu doo mun a nekk moom voilà da ngay da ngay teel a c'est ça quoi. souvent pour def vidéo euh, ak moom benn vidéo sa vous prend combien de temps. ah des fois moom ça nous même pas ça nous prend temps des fois xam nga mun na dem yàq affaire bi dem foo fooyi ñëwaat xam nga sa dépend daal des fois nag mun na ñëw mu normal mu ñëw mu def ko vite fait mu jàll c'est ça quoi en fait. yow moo la gën a neex ci sa jarbaat. Euh, lu ma gën a neex si moom mooy que muus na te yaru na te tamit euh, maanaam lu nekk xam na fu mu ko war a defee déjà xam nga ba pare xol bi rafet na du mer xam nga boo ko waxee dara tak boo ko waxee dara ah pardon du si génn fee kii bi ah. euh, boo ko waxee dara xam nga automatiquement. da koy def même boo ko gëddee nga kii ko yooyu après moom day ñëwaat ne la baal ma ak affaire yoo xam nga mais xam na li nga koy wax nii baaxul mm-hmm. c'est ça loolu moom a gën a neex si moom surtout côté xel bi voilà c'est ça quoi kon nu mu lay xoolee yow nag yow su ma la laajee lan moo la neex si tonton di nga ma ko wax lan moo la gën a neex si tonton Sadio. Hmm? lan moo la gën a neex si tonton Sadio. crème glace da lay jëndal ay crème glace loolu la gën a neex si moom. taxawal nga wax bu baax. moom damay yóbbu damay yóbbu ay ay kii ay Magic Land. ah géej ak bese yaagu. Mhm. la jëndal lan. Hmm? lan la lay ay chips ay crème glace. Ah. <laughs> Euh, Sadio moom baax na wala baaxul baax na si yow bu baax wala tuuti rek. yu bëri. yu TikTok yi ngay defar moom neex na la bu baax. waaw. doo ma defaral benn TikTok ma xool. mën nga woy ban ban woy nga may woyal. ban la. moom nag ah, Viviane. mooy sa woy. daa Baye ce <laughs> que xam nga ni Baye Mass ak Vigie dañuy ñoom ñaar ñëpp dañuy def concert le 5 août yow ban ngay dem si Vigie wala ci Baye Mass. ci Vigie. ci Vigie ngay dem. Ah, kon nag Vigie ka kaay jël ci bébé Marème nga yóbbu ko. <laughs> musée des civilisations. voilà euh, est-ce que des fois di ngeen am ay euh, way ay artistes yoo xam ne dañuy génnee son bu bees wala dara woo leen nee leen dama bëgg ngeen defaral ma ci TikTok ak yooyu est-ce que yaa ngeen di jot genre message yooyu. waaw c'est vrai parce que euh, y a pas mal de artistes xam nga ñu ngi ñuy contacter parce que gis nañ ne xam nga des fois dañuy ñëw ñu def suñu video naturellement ni quoi gis benn son benn benn challenge ñu topp si mais bu ñu si toppee dañuy gis ne carrément suñu boss mooy ëpp vie wala xam nga dinañ bokk si ñu ko lancer quoi en fait donc di ko moo tax xam nga yeneen artistes yi di ñëw ñu si mel ni ay ñoom euh, ñoom kii ñoom euh, Oulimata ah ay ñoom euh, comment dirais ça El Maestro voilà ñoom ñëpp gars yi dañuy contacter bu ñu génnee ay son xam rek parce que si TikTok bi si lay gën gaaw a percer quoi fait te mooy tax nit ñi di emee son bi c'est ça boo xoolee sax ba si Viviane bu doog génnee son sax son bi gars yi duñ ko comprendre mais il suffit que gars yi di ko TikTok di ko TikTok nit ñi di comprendre di xam sens son beeg affaire yooyu noonu parce que gars dañ ci defaale ay comédie defaale si jàllale si ay messages yu bëri c'est ça en fait. mais est-ce que yéen ngeen ci am euh, tuuti xaalis ci euh, genre des fois da ngeen di def ay pub wala dara est-ce que TikTok bi ngeen def TikTok moom comme fayagul Afrique moom mais am na beneen moyen boo xam ne ne mën ngeen ci am revenu à travers TikTok. waa loolu moom dëgg la parce que TikTok euh, Afrique moom. waaw c'est c'est c'est difficile wax dëgg yàlla parce que lu dul publicité yi. publicité yi doo si gagné dara. ak connaissance yi nit ñu luñ la mun a jëriñ ak affaire yooyu noonu xam nga doo si gagné dara mais. kantaa euh, ñu si gagné xaalis moom o dëgg yàlla gagné ñu si dara xam nga voilà xanaa des fois gars yi di def ay pub xam nga ñuy pub seen i diw affaire yooyu noonu xam nga man duma ma bëgg tamit di leen di leen di leen laaj xaalis parce que xam nga commencé guñu carrément ñun moom dañuy doog a door voilà ñun moom eh, eh, dañuy mun a wax ne ay gan lañ si affaire yi donc di coup dama leen ñu wax ñu joxe benn produit xam nga comme produit bi ñuy kii rek après ñu defal leen pub noonu. mais au fur et voilà mu nekk mu nekk échange au fur et bu ñuy gën di dem xam nga affaire yi di gën a yokku te gis naa ne mu ngi xaw a tuuti gars yi pub bi mu ngi xaw a ñëw tuuti mais on espère bien quoi lu bëri. Euh, à part TikTok bi nga xam ne ne moom ngay def est-ce que am na leneen loo xam ne ne euh, moom ngay def. voilà man moom franchement damay football xam nga la laa damay football en même temps yor naa sama mboto xam nga di def càq cak aussi voilà. parce que euh, dañ doon naan man football rek laa doon topp moom wax dëgg yàlla football rek football entraînement ñëw toog après def TikTok kese mais dem naa ba si biir xam nga rek boo toolee yenn yi xam nga gars yi dañ lay exiger dara affaire yooyu xam nga loolu quoi moo tax ma ne xaaral ma jéem a ut sama benn mboota di si cag-cag loolu la yi ñi nga xam ne dañu yor yu mag yi wala dara bu ñu bëggee yenn euh, livrer fenn mën nañ la contacter nga nga livrer leen ko. c'est ça mu livrer leen ko vite amul benn problème xam nga bu gën a sûr te gaaw incha allah. Euh, bi yaayam gisee ngeen di def vidéo yi ban réaction la am. Euh, yaay moom déjà moom dafa musa a fan voilà moom ba tax na lu ko lu ma def rek da kay neex c'est ça lu ma def rek da kay neex bu mu gisee video yi xam nga woo na ma kontaan na si trop affaire yooyu ne mun a ma cey saa di nga defloo sama sama doom bi parce que moom de ba muy nekk bébé laa commencé sonal. parce que ñëpp dañoo yaakaar ne sama pa sama sama doom la waaw tellement que nu ñu ndiroo wee ak ni ma ko yabee ak affaire yooyu noonu c'est ça quoi moo tax yaay moom lu ñu def moom neex na ko wax dëgg yàlla ak euh, papam vraiment xam nga baax am compréhension xam nga c'est ça quoi parce que lii euh, day gën a jàngal xale yi du question de day yàq xale ga affaire yooyu noonu mais gis naa ne à fur et bu ñuy gën di def TikTok moom day gën a muus xam mais boo def TikTok da ngay xool yan genre TikTok nga koy def ak affaire yooyu noonu xam nga bàyyi defal lii kii war noonu. ñi bu nekkee di lëmbal même bu nekkee da nga koy wax ak benn euh, ton boo xam ne ne c'est un peu taquin mais da ko naan lëmbal baaxul loolu moom dañuy gis tout le temps ci vidéo yi nga koy wax ba pare dañuy gis aussi bu yuuxu da nga ko naan non non jigéen du yuuxu jigéen day waxee nanka à travers vidéo yi ngeen di def yaa ngi ko si joxaale aussi euh, li nga xam ne moom mooy ay conseils. c'est ça loolu important parce que xale. boo ko bëggee jàngal da nga koy fekk si si lu mu nekk maanaam muy nit ak lépp muy xale ak mag ak yëpp boo ko bëggee jàngal da nga koy fekk si lu mu nekk déjà xale comme day bëgg foo genre si foo bi nga koy mën a jàngalee yii ak affaire yooyu noonu xam nga nii lañ koy defee nii lañ koy defee comme ça da koy teel a comprendre koi ci vois moo tax xam nga lu ma ko wax si loolu rek après da koy jàpp bu demee buy foo ay morom yi sax da la ñu naan eh lii baaxul eh lii baaxul voilà c'est ça quoi c'est important c'est important. tey est-ce que bokk nga ci xawma ndax am ngeen association tiktokeur yi dama gis des fois gars di dajaloo daje benn place ak yooyu est-ce que xamante nga si ñu bëri yaa ngeen di fréquenter. waaw am na ñu ma si xamanteel ñu bëri te gars yi yàgg nañ ma woo nag si affaire yi mais xama rek man maa munul def yooyu noonu parce que déjà xale la te bugguma mu gën a nekk si milieu bi affaire yooyu noonu. Mm-hmm. donc bu doon man kese la amul problème te man xam nga entraînement laa xam ñëw toog. ak cag-cag affaire yooyu noonu xanaa des fois laay dem seeti yeneen gars yi bu ñu bëggee def ay yenn vidéo ma dem compléter leen ñu kii mais pour moom mu dem bokk si affaire yooyu moom c'est trop tôt quoi en fait parce que bugguma affaire yi nekk si bopp bi trop man lu may def ak moom TikTok maa ngi contrôler xam nga psychologiquement nu mu koy def ak affaire yooyu noonu donc euh, c'est très important quoi te TikTok yi du tout le temps lañ koy def loolu tamit foog ñu wax ko. voilà si benn jour mun nañ def vidéo yu bëri voilà des fois mun naa def vidéo denc heure bu ma neex ma dugal xam nga des fois mun naa def vidéo denc ay xam nga heure bu ma neex ma dugal parce que ñëpp ñu nekk TikTok ñoom comprendre nañ xam nga c'est pas tout le temps mun naa dugal mun naa nekk fi tëdd xam nga sama bopp bi di met mu dugal vidéo mais gars yi xam nga am na ñoo xam ne duñ comprendre dañ lay woo ne la yow yaa ngi feebar ba pare def vidéo te alors que def nga vidéo bu yàgg c'est ça quoi gis nañu temps yi aussi live yi bëri na ah, gars yi ñuy dañuy def ay jeux ci TikTok bi def des directs dafa dem ba monde bi sax léegi dafa dafa xaw ma na laa koy mën a kii mën a nekk fee kii mën a ñëpp ay xamante en fait ñëpp ñëpp est-ce que yaa ngi yaa ngi def yooyu aussi. waaw ñun ñu ngi def live mais live yi buñ koy def ñun xam nga man dama koy dama koy limiter live yi par heure la ak par jour parce que live yi moom bu jàngee ba vendredi. vendredi laay def si si vendredi. bu wàccee laay def live ak euh, samedi bi kese laay def live te yooyu tamit xam nga rek ñit ñi da ciy baax tamit xam nga bu ñëpp nekkee bu si ñëpp nekkee buñ si topp lu bon li mais ñu jéem a xool lu baax la ñu siy def parce que gars yi bu ñuy def live nañuy jàngale xam nga kaf foo ree te ñit ñu comprendre luñ nekk TikTok TikTok pour foola la kaf ree xam nga nga wane sa beneen visage mais c'est pas parce que noonu nga mel rek noonu ngay dugal si TikTok bi xam nga loolu c'est très important pour gars yi xam ko tamit aussi. balaa ñuy tàggatoo Bédi dañuy ñëwaat ci ci bébé Marème bébé Marème lan ngay wax waa Sénégal ñi nga xam ñoom ñoo la seet si woon parce que gis nga tey wax bi bëriwul bëgguñu la sonal. looy wax waa Sénégal kontaan nga si ñoom wala. si waa Sénégal. waaw. tuuti wala kontaan nga si ñoom bu bu ngand. bu ngand. bu ngand. léegi waxal loo bëgg a wax sa fan si. léegi waxal sa fan ñi nga lay seetaan si TikTok bi naan. waxal bu baax dañ laa bëgg waxal ak ñoom wax leen ko yow yaa leen gën a bëgg wax leen xoolal fee ngay xool nga wax leen ñoom ñu. xoolal fee nga ko <laughs> xool man moom xam naa def tonton waxal lan ngay wax sa fan si. si. xoolal fii. wax leen bu baax ñu dégg ko. merci. merci. doon wax sax bisou. bis. doo leen fecceel ban fecc nga leen di fecceel wala mënoo fecc. ban fecc. anke. lëmbal moom boo ko fi defee dañuy xeexaat léegi. <laughs> ban fecc nga leen di fecceel fecceel ñu tegal la benn way. ban way laa laa waaw mu ñëw. su ma paree damay dem. dem fan. Ah, voilà Sadio wala Diossa comme noonu lañ la gën a xamee si TikTok bi kontaan nañ trop nag dalal si Sénégal donc dañu bëgg instant bi nag ñëw ci tiktokers yi bu baax jël leen gars yi aussi gën leen xam xam li nga xam ne ne moom la ñuy def donc ñu ngi lay remercier di la bàyyi nga wax ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di seetaan. waaw vraiment nag euh, kontaan naa si trop si li ngeen ñëwee te tamit c'est très important xam nga ngeen ñëw du xool si gars yi nu ñuy dundee. ak euh, ngeen di leeral yu si bëri parce que bëri na ñu tiktokers yu ñuy yu ñuy yu ñuy euh, yu ñuy xas yu ñuy wax xam nga rek bu ñu dugalee dara ñu xas leen ñu leen jugé carrément te c'est très important xam nga initiative yi ngeen jël nii carrément di dem xooli tiktokers yi du ñuy dund ak yooyu pour ñoom ñu koy mun a xam e c'est très important tamit wax dëgg yàlla kontaan naa si trop bu baax maa ngi euh, sant ñëpp. di sant euh, fans Bébé Mayra mi parce que bu dul bu dul woon ñoom tamit duñu yegg si fii te sa te xam ne tamit dañuy foo rek waaw lépp lu ñu ciy def dañ si foo xam nga du question de métier ak affaire yooyu noonu ñu yor nañ suñuy métier yor nañ suñuy yeneen activité te sa donc euh, ñu am compréhension rek xam nga di leen béggee bu baax nag wax dëgg yàlla kontaan nañ trop. kay fecceel sa fans yi ah, waaw waaw Bese. Ndeysaan. Ndeysaan. Bese. Bese. Waaw. Bese. Bese. Ay. Aja. Bese. Bese. Fecc bi, feccu xale bi. ndeysaan da ngay yàq vidéo yi tamit solal nii xam naa dafa tàng solal lii. maa bañ. dañu xuloo de. waaw waaw baax na ah